ak yenn piis yi ñu doon. defaraat Baye Moussa campement laay jëkkee nga ma dëkk fa laay jëkkee. ah fa laay jëkkee teg ci Malicounda bépp espace bu desoon ci tool yi ñu daggoon ci autoroute à péage bi maire yi jël nañ ko daggaat ko ay kër jaay ko. Dakar gi de war nañ ko auditer moom. fi war a auditer moo bari. surtout ter bi bi ñu koy liggéey postes yi des ak it yenn piste yi ñuy jaarale ci biir commune ay piste 1 piste 2 ci commune yi particulièrement ci département bu Pikine suñ fa demee moom yaakaar naa loxo dana dem gémmiñ te lu war a nag. ma ni il faut ñu auditer non seulement auditer mais faut ñu nangu suuf yi faut ñu nangu suuf yi jàppandalal xale yi kenn des des entrepreneurs nekk entrepreneur Baye Moussa li ngay recruter nit ki euh, di fait fay journée 2000 ou une journée 3000 damay nangu sa 35 hectares pour 70 jeunes qui ont nekk ma jox la genn wàllu hectare Yo man la canne kaani yo man la belle soble yow man la bayal bat jaxute yow ma la bayal batanse kenn ku nekk 3 mois di nga def récolte boo xamante ni bi di nga mën a fay ñetti yoon li la doon fay et transformer nañ la benn benn benn promoteur waaw yow mi am say million leb ko ci banque yow donc yaa war nekk promoteur léegi jeune promoteur warut am benn xale warut am genn wàllu hectare am ndox di fa exploiter lu nit ñi foogul bien sûr jëlal sa genn wàllu hectare 500 500 mètres carrés nga nga kii ko 500 5000 mètres carrés jël ko nga nga xaaj ko def ko ñeenti tool fi nga def fa kaani fii nga def fa salaat fii nga def fa fi nga def fi nga def fa leneen comme gombo kànja par exemple nga bay ko 3 mois nga def récolte nga xool c'est-à-dire yaafus la ñu jàngal ndaw yi parce que ndaw boko jangalé bu xëyatee nga jox ko 2000 bu suba bu sonné du xey <laughs> parce que day fekk 2000 et des 500 bu ginnaaw suba mu xëyaat nga jaxal ko 2000 ñu jangal la tayel genn ci yow nga décourager wu te toujours ñom dañu am benn discours bo xam ñun dañuy investir ci askan wi da du dëgg investir une belle yon ci askan wi seen bopp la ñuy investir askan wi c'est ça tayyelloo xale yi defuñu ci ñoom benn courage pour nangoo liggéey nañu bàyyi suuf yi ku bëgg teraanga outil ji ko faneen ful suuf bàyyi. voilà léegi El Hadj Mansour tey euh, suñu ay dirigeants ban problème la ñu am ak suuf pourquoi seen cible yëpp nekk suuf. du suñuy dirigeant de du suñuy dirigeant dirigeant libéraux yi fi nekkoon ñoo bàyyi. benn benn Sénégalais triant

boobu la ñu ko ba de la ko wax parce que population parce que dama ko parce que bi campagne dama ko wax ni ko fonkal sa ay kàddu mu gagné ma koy jour ma toog ak moom di ñuy waxtaan ci nit ñi am ay nit ñëw toog mu teg mu def ay ci noppam di wan ñu di snobé ñu ci mu ko tu ne respectes pas ta population mérite woo sax jiite ab c'est exactement ça mais il faut nous traiter comme comme nous parce que maire dafa war a à la xidmatil shaab mhm. da nga war a nekk ci service population mais war a autorité au-dessus de tout le monde de imposer lu la neex tegul fenn ak nguur gu bees gii ñu la ñu recadré wat ah. en tout cas na si na si voilà mu ngi non kon dañuy continuer rek ba ak visite bi